nee nee nee lamba tërëri rek barke sëñ Fallou billaay wallaay. si loo ne. lépp jaamu kay. yàlla ay mbir. ay mbir. xale bi ngeen am. mooy kan. Eh, la jóge ak si la laa jóge. kooku suñu rakk la papa nee la lu bu jógee adunaay jóg barke allah ji xam nga combat bii nii lim leen mën a yóbbu bu ngeen daanee. bu ngeen daanu dañuy daan si kàttanu yàlla suñu borom dégg nga ma ay bébé Modou Lo ñun dawul suñu yaram. mais ngeen waroon a bëre moom bu yàgg. bu yàgg combat bi yàqu woon. jëlaat ay gàllankoor la rek. ay mbir kenn du la wax du lépp la ñuy wax nee naa la bàmmeel bu amoon puusal ma tëdd kenn du naan da nga ñëw sama lonko se day naan gaan mais ma ma tëdd. parce que baam Bamba. mais nee na bu njëkk bi blessé wu leen dara jotu leen da ngeen a daw. dañaa blessé woon. da ngeen doon tapale la woon non dañu doon tapale. woon. bari sëñ Bamba dañu blessé woon. ay mbir li si kanam la wala la huit. billaay wallaay tàllaay barki allah ji faal ba Modou Lo maa ngi lay wax lu garaaw waxuma waa ngeen waane yow laa wax barki Seydina Muhammad la huit nga xam ne yow doo dërëm. billaay wallaay wa tàllaay. mën naa gën a gaaw seen diggante ak Dangote. kan mooy Dangote. waaye ah, ñun kooku fàtte nañ ko waaye. Hmm. bi. xam hmm. waaw donte day xam na waaw que le foofu. que le parce que man tey jii nii ne toll naa foo xamante ne mbër yëpp a ma béggee quoi. Ah, ah. tey bëggatuma di wax si loo xamante ne mooy loolu man nee leen dama am samay mbër bu weesoo Siteu Laurent Lise Talfa xama Papa ñoo ñooy sama mbër quoi ñaa bu ndaw nice ñeneen ñu si des ñëpp ay mbir. waaw maanaam laa ma jooju noonu noonu uh-huh. ku si wax juum. si nan barki allah ji fàllu. suuf si ma avantage rek na tey. mais gars yi dañ ne diggante mag la ak xale. <laughs> ñu gis Ada saxaar du muy gaaw gaaw mënul romb murum kaxataar. saxaar lu muy gaaw gaaw mënu romb mburum kaaxataar saxaar lu muy gaaw gaaw mënut a romb mburum kaaxataar olof laa la làq de. maanaam comme maanaam aara. na jël temps mu cons lamb ji. te xam ne mooy xale. Zoss mag la mais tamit dafa saay saay. xam nga si loolu. barki allah ji fàllu. voilà mais na jël temps rek laa ma jël ñoom xam nga bëggatuma si wax ay mbir sax. mais ak coow li nga xamante ni jaar na fi yëpp ci uh-huh. tam coow di wax si moom sax bari sëñ Fall lu may wax si moom na doon la rafet quoi parce que bu dul dara xama maag moom la woon combat Zarko Ada Fass loolu jeex na quoi xam nga après làmb ji gaan nañ dund jàmm moo gën xam nga ñun doomu dëkk bi lañu. bari sëñ Fall mais moom ak Jos gaan que le meilleur gagne quoi waaw loolu am na mais bu nekkoon si samay mbër. Ah. waaw loolu ba nee ma wax la si lu si xew. ah waaw noonu la demee. Jos da koy al ñu xir bi jox ko talfa talfa tollanti ko. mais rek. ar dafa bëree lu ay moromam ba léegi suñu sama tooma yabuñu sax ah. wóor na Serigne Bamba. yóbbu leen ci nan Talfa ak Bari Bari la lañ signé ak ñoom roi des arènes la signé ak ñun te si kattanu yàlla Modou da koy aal tal tal jël ko aal ko Bari Bari si kattanu yàlla barke sëñ Fallou ñun ñoom rek nañu topp ay yàgg na moom xam na aara xam na aara xam na jos xam na quoi jos yabuñu sama tooma sànq rek déggante nañ moom xam na barke sëñ Fallou moom xam na ay mbir quoi lamba tëddee rek bàyyi gis fi waaye gis nañ fi Zarko Ada Fass te Zarko moom moo mag Zos bu mu ko jàppee da ko tollanti. Ada yàgg na. Ada Fass Zos xool adversaire Zos nga xol ma loolu laa la laaj quoi nga xool ñu ñu Zos bëreel ak ñu Ada Fass bëreel. merci yàgg na. mais dañ mag du dugg dus xale di koy yëndu. ah mag du dugg dus xale di koy yëndu. loolu laa bëgg nga xam nag yàgg na